ayca mbokku internet yi ñi ngi leen di nuyu di am contenté jakarlo wat ak yeen ñu wat suñu kër way délégué Amar ni ngeen ko xamé tay nak euh, muy def déclaration bu am solo ci mom ni ñu ko waxtané ak mom wi kulo mais duñ leen ci léral dara mom la ni bayyi mu waral mu wax ñu lu waral wo bi ñu wo fi site internet yépp ngi tew ñi leen di nuyu di am mbégte ak contenté délégué ñi ngi lay nuyu di la jaar di la bayyi nga nuyo mbokku internet yi lay sétane maa ngi lay fay mbay di jox sa siyaar sa ko yi nga andal li liggéey muy site internet yi mhm. nga xam ne ñu wuy si rek daa xawa jafé jafe mhm. seen activité yépp waaye nak samay wa kër ngeen mhm. bu ngeen bu ma leen soxla day yomb ci man ndax samay nit ngeen ma ngi nuy ñëpp di ciar ñëpp waaye di jiital ci nuyu ver ciar bi serigne Muntaxa Mbàkke diko ñaanal suñu borom yagal ko te wéral ko amin ak kàttanoon ko dooleel kon naa li mu am ci yoonu maamam ju sell jooju di seexul xadim mu ànd ko ñun taalibe yi ñu def ci sunu doole ak sunu poos ak sunu lépp ànd ko moom liggéey liggéey ko di ko ñaan kër tarixa diine yëpp di waaj tamit bis bi nga xam ne mooy sunu bis mooy sunu lépp muy màggalu Tuubaa gi incha allah ci kàttanu sëñ Tuubaa di nuyu waa Sénégal ñëpp bàyyi wunu kenn tey nag li waraloon woote bi mooy lu lu lu lu doy waar la hmm. ndaxte dafa am loo xam ne ñëpp moom lan ma xamee hmm. muy artiste bi nga xam ne moom moo nekk ci réew mi hmm. yéen ngeen ni ko mooy le chanteur du peuple <laughs> déglu ma rek hmm. yéen ngeen ni ko mooy chanteur du peuple gis nañ fi la roi di mbalax gis nañ fi la star planétaire yooyu yëpp mais yéen yéen ko fal def ko muy chanteur du peuple te ma am lu ma xari lool loo xam ne samay mbiru bopp la yoo xam ne ay tànk yu ma jël la mhm. pour jëmale ko foofu ci artiste boobu mhm. ku ne umpalewul ne man mhm. nit ñi lu nekk lan may wax ndax jëmmam dugg naa fi kaso ndax faramaare ni def naa fi lu ne ndax moom euh, samay mbokk man wax ne am na ñoo xam ne ndax moom mais nag tey nag dina lépp dina leer ci nopp sénégalais yi mhm. décision yi ma jël ah. benn mooy mhm. euh, li nga xam ne mooy farmaareen mhm. euh, sunu borom def ko mi ma tee baal ah, sunu borom def waali di patron bi di njiit li ma nekkoon fa at ñoom yor voix bi nga xamante ne ni mooy di ko défendre ci internet bi ba tax kenn amul fitu attaqué ko ci internet. <coughs> muy hmm. Jean du Paul. <coughs> kenn amul fit wi. Hmm. dama nekk fi. Hmm. loolu nag xam naa ne. tànk yi ma jël. waaw dangeen ko namm. ndax lan que maa jël ay tànk ay tànk yu mel noonu. fii it man li ma bëgg defaluñ ma ko. ok nga. beneen bi tamit il fa lekk gars yi xam ne man kilifa laa. ok man duma topp ci ginnaaw kenn. ku dul sëñ Tuubaa ndax dégg ngeen wax du ma topp ci ginnaaw kenn ku dul sëñ Tuubaa mm-hmm. jëmm jooju nag moom sëñ Tuubaa waaye dinaa ci ñëw mm-hmm. lu nekk nag laay dégg internet bi lu ne laay dégg lu ne lañ may wax ndax waali may gumba di tax di lóor de di di di nit koo xam ne tamit man ma bokk fu baax bokk ci famille bu baax nag mm-hmm. maanaam man dama doon nit koo xam ne tey dama waroon a toog nit ñi ñëw di ma siyaar waaye ñun sunu maam dafa jël lépp jaay ak taalib bi lépp def ko ak taalib bi moo tax ñun nekku ñu ko xamne day sol dara di defal di toog ñu ngi ziar waaye loolu lañu ñu waroon doon kon buma amé amee daraja bobu suñu borom def ma bok te Cheikh Amar mhm. ku ko xam-xam ni fi milliardaire yi fi fiy dégg ñu ci bëri ci mom lañ jaar mo leen defal ministre fi yu bëri ci mom lañ jaar mo leen defal artiste yi yu bëri ci mom lañ jaar mo leen defal mhm. ma bokkat koku nak kon xana buma neexon duma top ci ginnaw kenn di la kaasal mhm. waye lama wali wan jimma ba tax makoy def mo waral ma top ci ginnaw diko ko Mm-hmm. ba nga xam ne kenn du ko mën a laal ci benn benn côté. Mm-hmm. mais nag nit ki boo amee loola naqar yi. am nga sañ-sañ génn wane ko wax ko. Mm-hmm. génn wane ko wax ko mooy. dafa jot sénégalais yi xam ki ñu am. dafa jot état xam kii Wally Seck ndax dégg ngeen wax bi parce que Wally bu nekkoon beneen réew état bi ñoo koy jël teg ko seen wet di liggéey ak moom di jël ay xalaatam mhm. di jël ay dooleem mhm. di ko def ci seen biir gouvernement mhm. lu waral loolu mooy ginnaaw màggalu Tuuba at gàmm at tabaski mel ni mu Wally Seck seul mooy dugal économie bu bëree ci biir réew mi ndax dégg ngeen wax bi ban côté xam naa ne am ngeen déception defe ngeen ne woon ne damay wax lu garaaw mais ci li ñëw ba tey damay wax rek de sama xalaat li muy dugal économie bi muy dugal ci biir réew mi à part màggal ak euh, gàmmu ak tabaski mhm. amul leneen leneen keneen ku koy dugal ci biir réew mi mhm. li muy def ci ay concert li muy def ci ay concert gise ferme waa li sël moo ko fiy def mhm. benn benn semaine matu ko sax ah. nga def trois concerts ci benn dëkk muy Kaolack Louga at Mbour nga def ko ay gise ferme c'est oh, iya. pas normal ma taxawal rek déglu rek déglu rek déglu rek ay te ñëwal yow rek la sëñ bi da ngeen may déglu yow rek la ñuy déglu ma wax wala ngeen bàyyi ma dinaa ñëw benn kon kooku il est temps état jël ko liggéey at moom waxuma la mu bokk ci gouvernement bi de mais hmm. ñu jël drapeau Sénégal teg ko ci ndondam mu yóbbu drapeau Sénégal fu kenn musul yóbbu comme ni sunu papa Youssou Ndour defee hmm. incha ndax fii kenn jàmbaar amul ku ñu dimbalee am hmm. jàmbaar amul de kuñ dimbalee am mhm. mais il est à état ci boppam muy bi fiy toogat bi fiy jugee bi fi mën di doon ngeen jël Wally Seck jox ko drapeau Sénégal mu def loo xamante ne yóbbu drapeau Sénégal foo xamante ni kenn mus ko fa yóbbu ndax yeneen artistes yi ngay gis ci yeneen dëkk yi dañoo yóbbu seen drapeau réer fu kawe yéen xam ngeen li may wax fu kawe la ñuy yóbbu seen réew parce que seen seen <clears throat> état moo leen di jàppale Wally moo fi musul def lu kenn musul def mhm. mu ñëw osé osé bi mooy lan mu dem Paris jël saal ba gën a rëy loo xam ne Youssou Ndour moo ko doon def moo wane yoon wi mu am fitu ñëw jël ko tëgg ko à part moom gisaatoo beneen africain boo xam ne tëgg na fa wala beneen sénégalais boo xam ne dem na Bercy dem tëgg fa kon tey bu ñu demee ba yëpp suñu papa Youssou Ndour jël lu toll ne arena tëgg ko te arena Macky Sall defu ko fi pour ñu koy tëj est-ce que nga baax il temps nag Wally sekk jël arena ko taxawal rek damay ñëw. Uh-huh. parce que dafa am artistes yoo xam ne dañ ko fi doon jël suñ demee ba xam ne mbir mi lu dox ñu def ay xawma lan kii médical indi benn lay teg ko ba nga xam ne dootuñu leen mën a jox arena fi toll nii benn benn benn benn mbir dong lan soxla ci Wally Seck hmm. mooy mu indi dem arena jël ko defal ko te bu ko benn promoteur tëgg non waxum guma arena laa la wax yow arena nga mu dem quoi. voilà mu jël arena tëgg ko parce que arena waali xajatul ci ay ay esplanade yu grand théâtre wala xajatul ay foire xajatul ay lan place de souvenir affaire yooyu noonu parce que loolu dépassé nañ ko waali Seck mus gëñ na def benn su euh, événement boo xamante ne événement boppam la muy événement bu mag a mag a mag a mag a mag boo xam ne pour moom la moo ko def organiser ko boppam gëñ ñu ko def te il est mu def ko li mu koy defee nag mooy lan arena fii wali sek Seck jëlut ay engagement bopam pour dem arena ah. yobbu fa sénégalais yi ah. man damay bàyyi faramaayen al lepp lu tak ci Wally yow loolu moo naqari ko wa lolu ci ci la bok ci la bok ci la bok ah. comprendre nga parce que yeen xam ngeen né artiste fi nekkone bëgg jël arena dem ba ci biir def ay repos médical xawma lan médical bari na non man li ma comprendre mooy Wally kan moko téré mu dem jël Dakar arena noonoo non waxuñu la tere de man maa la. waaw bëgguñu benn promoteur. di ko tëgg di ko tëgg lu dul lan. ñun faramaare ni jël suñu responsabilité jël waali yóbbu ko arena. parce que xaaral xaaral xaaral déglu na rek dinañ dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw mhm. parce que arena mhm. président defu ko fi pour ñu koy tëj. Youssou Ndour ñëw na wan la leen yoon bi dem na fa. mais ci kaw tamit ñi ngi ñaan état bi bu ñu demee ba jël arena. Mhm. ñoom it nañ ci dugal seen loxo ci benn côté mooy lan dem dikk yi. comme ni ñu ko defee woon ak Youssou Ndour. délégué xam nga ne da ngaa fonto Sénégal. point point boobu leer na léegi léegi dina dina ñëw ci. waaw mooy exactement yow ak relation bi nga am ak Wally Seck. Mm-hmm. mënoon na la gën a jekk nga dox sa tànk dem kër Wally amoo ko sans intérêt. non non non non non non non non du affaire la waxuma la pour dem sans eh, dem toog at Wally wax damay wax li nga xam ne bëgg naa ko ñun. ñu def ko. mais mais li nga bëgg. Mm-hmm. d'accord nañ li Mass wax mooy am solo mais ñun lu ñu jaaxal mooy yow yaa def sa. déclaration ne da ngay déclarer wax ne da am lu la naqari. waaw ci waale waaw nga tàmbale say biir wax ne say mbokk ak ñëpp dañ la bedd ñenn ñi. dama doon ñëw te pare gu ma de ndax waale. non moo tax si. Uh-huh. léegi boo ko nee say point ba pare. Uh-huh. yow ñun dinañ la laaj ñun tamit suñuy question parce que léeg li ngay wax nii yow. da mel ne ku yeewu rek sëlmu rek ñëw toog ak presse bi. non non non non non non dañoo dañu dañoo gis ni mhm. moom bi déclaration lu ko mhm. Mhm. bi bari ci appel bëgg man vraiment euh, ba question sur réponse la question sur réponse la wóor Serigne Saliou ne li ngay a def ci waali bu ko def samay responsabilité la mais yen yen yen ku ma xam xam ni ma mel ci mom han ah? kon amna yo xamni yen war ngeen ko comprendre mais amna lo ma nakari lima nakari lol la mu dem moy li wali demul dem arena bi moo ma naqari at fessel yimi fessel feesal stade ba nit ñi di def gisa fermé ñi di crise mu jël yenn way yo xam diko way ci xolu sénégalais muy jaxase xolu sénégalais di indi crise lol loolu moom métti waaw loolu waaw waaw non waaw waaw question demal ci réponse léegi li ma jaaxal mooy lii nga woote li waaw foofu laa bëggoon ñun ñi nga woo wax ñu yéen bu ma leen woon ci kaa leen ma bale fii sax da ngeen di ñëw parce que sama waa ngeen non bu leen wax di ngeen tax nga woo presse bi dama leen woo pour waxtaan yi wax li naqari nga wax nii la mën a saafara ci li la naqari quoi li ngay wax nii bu ko nit ñi déggee mooy waali jëlul Dakar Arena loolu moo ma naqari su ko jëlul sinon waxuma la waali na jël Dakar Arena la waaw sinon nga bàyyi sinon man fii tëggul Dakar Arena waaw damay maanaam damay quitté ci voilà léegi loolu laa wax bi nii nga ko wax nii lan la mën a saafara bañaa saafara parce que dina ko def c'est pour Faramareen yëpp képp ku seetaan vidéo bi dina dem def engagement ba waa Wally jël arena mais délégué est-ce que yow lii nga bëggoon a wax lu tax nga bëggoon a wax li Gallo wax léegi dama siy ñëwaat euh, délégué da nga delloo avance bi am nga loo bëggoon a wax waxoo ko non dama leen di tënkal nga xaaral ma wax la benn affaire su dee galo nga génne ay photo Wally Seck yëpp nga wàccee ko. te mhm. daa am la naqari nga ëbbati ko du ñuy wax ay waxu Arena ak Pata Ndiaye ak Moussa Ndiaye. Euh, kii Paco. man sama diggante bi Wally. waaw pikk la at peel. Ah, maa ngi waa waxaale tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci staff Wally te jege ko. Hmm. jox leen benn message ñu bàyyi ko xel. Hmm. man ay xoqtal hmm. taxul ma dellu gannaaw ci waali taxawal rek mhm. ay naawtal mhm. taxul ma dellu gannaaw ci waali mhm. def nañ ma ñaari façon geste yu doy waar waaw dem naa ñaari concert waali ñu bloqué sama oto ci porte bi taxawal rek ma tourné waat ci concert ya ma demoon ñibbi si biir biir ndakaaru taxul ma bàyyi waale de benn bi ci njëkk mooy Louga bu daaw bi dama dem ba ci bunt bi mas Dakar live xam na li may wax bima demé ci buntu bi auto wali dugg beneen auto dugg hmm. ndax man yalla daf daf meuna to benn affaire li meuna to moy wali fep fu muy teug hmm. ci senegal hmm. suma ko mané dara jotuma sama auto dama koy tal top ci ginnaaw otoom lu ko waral moy kilifa la ta star la te auto bi daw pono buy toj ken fan lay toje lolou motax ma jël sama engagement fu muy dem ma top ci nga xam ne bu yàlla dogaloon ñaanu ma ko yàlla tey pono otoom toj dina mën a jël sama oto dem continuer dem soirée bàyyi ma fa ma defar otoom mhm. pour bi loolu amee concert Louga bu daaw bi mhm. ma ñëw ñu bloqué ma ci porte bi mhm. biñ ma boloke ma ñu woowaa ji ne ko lu tax ñu ko mu ne ma diw nee na oto bi du dugg man ne ko ah waaw ma ne ko ah loolu la waa mun a ne ko waa ah, ah, baax na ma taalaat sama oto tourné waat Louga ñëwaat Dakar noonu laa ñibbisiwaatee Dakar concert u daaw jéeg bi laa la wax de bu ren bii tamit bu Kaolack bi gisuma sax seenu Kaolack bi nu mu mel xanaa ci site internet bi ah waaw parce que yëpp ay xooxatal la rek ah, waaw dinaa ci ñëw non wii non yi lépp waxtaan rek grand nga ñu def ma ko bu Louga buluga Louga ma ma jël lepp muñ dëgg sama tank ñu defaan mako ko ba bi passé ma ñëw ba ci buntu bi wara duggu ku jël 80000 def sa auto plein lo jëndé ticket tewu mais man fa wu ma fu waale di tëgg may jënd ticket xalaatuma ko sax sama pour lan ma ñëw ñu ma ma tourné waat sama ñi ñibbisiwaat waat dakar yoyep ay xeeti xoxtal la benen bi moy ñi nga xamné tamit dañuy jégué waali am na ci ñoo xam ne bu bu ma defee interview ci waali ñii wax naan non délégué dañ ko war a yemale dañ ko war a yemale nangam ak nangam ak nangam ku ci am fit rek ba bëgg ma yemale am na sama numéro téléphone xam nga fi ma dëkk te man nga maa woo ma ñëw nga yemale ma. xaara rek waaw non non déglu ma am na yoo xam ne sëñ sëñ ma kii jarut nekk di di ah, guddal di gàttal déglu rek xaaral ma xaaral ma wax la rek non non dafa tey jii bu ma defee interview ci waal yi ku jege waale bu waxee waale lu ñaaw ma ñëw défendre ko am na ñoo xam ne dañoo jege waale dañ naan délégué mii dañ ko war a yemale te xaaral xaaral rek non déglu ma wax la rek ñooñu tudd ñu ma ci kenn ñeme wu ci tudd ci internet bi de amul ku ma ci ñemee tudd kenn ma fi doon jéem a tudd ci internet bi di ma jéem a muy Pawlish Mbaye te du ko def ah waaw te dootu ko def yéen ñii set jël ngeen ko ba taay mu may classe parce que dootu ko def ba ma ko woowee téléphone la ma ko wax dégg na ko man du ma lan lan lay def biir Faramareen mu nax xoqatal maanaam tey comme lan xoqatal lan de wax naa la ko ñu may bloqué ci porte wala di man di wala di ma bañ jox nangam at nangam at nangam wala di def geste yoo xamante ne nii ko di dem voilà di voilà te yooyu gest la yoo xam ne pour diggante man at waali mu yàq te waat naa ci jëmmi Serigne Saliou sama yaay ji ma nàmpal sax hmm. munul yàq sama diggante waali loolu leer na mais euh, cër bi nga jox Wally Seck Wally Seck delloo nga la cër boobu uh-huh. pour mm-hmm. loolu question waaw lu ngeen war a laaj la parce que tey Mad Wally gis nga nit euh, Grand Yves Mad Wally àndee wuñ ay way way rek du kóllëre est-ce que baax fi may wax uh-huh. àndee wuñ ay way déedéet dañoo àndee jëmmi sëñ yi nga xam ne moom moom la ma jàppee man mi loolu laa ko jàppee muy taalibe yëg-yëg xaaral non déglu rek da ngay déglu ma yëg-yëg nag yëg-yëg nag gisuñu leen ngeen nekk gàmmu non yow yaa ngi wax yow daay ngi wax nga may waxu kii ngay waxu daayira daw taxaw rek waxee ñu waay waay maanaam déglul xaaral nga tontu Yves sama waay non non non du ma la tontu ci loolu te tontuwuma Yves yëg-yëg mooy cër bi waaw mooy yëg-yëg mooy ah man de cër bi ma ko jox mhm. jox ma ko kenn ndax yen gisal ngeen ko seen bopp lim xaaral rek moom su fekkee ne nag kii def ma laaj nga bëgg tontu laaj bi wala nga bëgg maa waxaat laaj mais li may li ma kii laaj xam naa ko mën naa ko tontu comprendre nga ba xam waali jox na ma cër bi joxuma cër bi waali du ma grand place at moom bokk leen déedéet beneen bi mooy cër bi ma ko jox ñëpp xam ne ne jox naa ko cër Mor Cheikh Amar yamalewu ma leen at dara mhm. waaye tey ku mel ne Mass dakaar live exemple rek laay joxe daf may woo téléphone Buma ma amee lu ma naqari mu jox ma ay xalaat mom hmm. bu amé luko nakari naqari ma ma jox ko ay xalaat hmm. man loolu la gëm ci ñaari nit yu and te bëggante te yalla rek tax hmm, est-ce que comprendre nga baax li ma wax parce que man mënuma di dem keur wali di fa tok di waxtaan wala ki di dem di gana Place ci wali wala nangam at nangam at nangam parce que mom do dañoo rusante comme ni ma jakaro rew ni di xoolante maat ko def kon gëm naa ne am na cër boo xam ne jox na ma ko xaw ma fesal na ko xaw ma fesalu ko mhm. waaye man cër jox naa ko cër ba fesal ko ñëpp gis nañ mhm. ku ne xam na ne damaa respecté waale mhm. ku ne xam na ne waale jaral na ma lu nekk donte ba bëgg naa sama bakkan bi lool waaye bu ko dara doon dal mu nekk sama ginnaaw ma nekk ci kanam parce que foofu laa toll ci moom tey ñi fi ñëw nii nii nii di def ay kii di nga ay teraanga nangam ñoo ñëpp dañoo jóge ci kër ñëw ci kër te man musuma dem fenn ku ma xam xoolal non non non non Omaro sama waay la de ah. Omaro sama waay la de non non non waxuma man ba may defal waali teranga boobu yéen ñi machine ba ba may jël ay teranga di jënd ay cab oto fruit di ko yóbbul waali ko mos a filmé mosul am non non non non loolu du Omaro Omaro dérangé wu ma de sama waay sama xarit la Sëñ Saliou bu moo tax mu jàpp moom moom comprendre nga mm-hmm. mais tey ñu mel noonu ñooñu mm-hmm. li ma man li may def ci waali mm-hmm. kenn amul fitu def ko ci waali tey la neex ku ci mel ne idaali Hmm. ku ci mel ne ay ñoom. xaar xaar ma ku ci mel ni Ida euh, ñoom kii. nu ah. mu tudd kii am problème ak papaam bu yaagu Paulis. Hmm. ku ci mel ne ay ñoom seex Mbacke. Hmm. ku ci mel ni soxna yooyu di wax tey lañ am tey lañ am fitu défendre Wally ci internet est-ce que comprendre bu baax. ba may défendre Wally ci problème mu t-shirt ba kenn amul fitu génn ñëpp toog seeni roq. ba may défendre Wally at maam góor jasaaka kenn amul fitu génn defendre Wally ñëpp seen roq lañ toog.

mom lan lay dund ci man waye man limay dund ci mom moy kenn du ko wax lu ñaaw mm-hmm. te fii ma ngi fi. ok mais tout le temps ci défendre ko lay def. mais man ma wax am. jox xar muy tabaski bi passé parce que ànd ñu wuñu joxante parce que ci teranga la ma fekk. maas man damaa tedd démb sëñ Tuubaa dimbali ma tey doog ko ñëw mhm. man famille bu baax laa bokk benn famille ñetti milliardaire ci famille Amar doog nga koy gis doo ko wër ba gis ko waaw xara rek muy Ahmed Amar Cheikh Amar Cheikh Amar Gabon amul beneen famille boo fee gis famille ñetti milliardaire loolu sëñ Tuubaa ñun la ko jagleel kon Wally daf maa fekk ci tedd deux 2000 fin 2012 laa commencé baatare Wally fin 2012 laa commencé yëkkati sama alal di ko jox Wally ba jonn yàlla tey ಮೆದಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೇಶ waaw waaw yow bokkoo ci man maar waale ñoo ànd jógee Ndakaaru taxawal rek non non non rek c'est non taxawal rek maar waale ñoo ànd jógee Ndakaaru dem ba Louga jógee wàll feneen fu anu. muy mais dafa rafet am affaire bi du affaire de badd wala nangam at nangam am na ñoo xam ne biñ ñëwee ci waali yàggul te pourtant bu waali di dugg ci concert yi dañ leen di bàyyi ñu duggat seen oto te maa leen jiitu ci waali fop te duñ takk badd mais pourquoi ñu cité délégué Amar pourquoi ñu cité ma man ñi nga xam ne déggule ma man maar waali du ay waxan téléphone yii nii man moom seexuñu ko. kon kan nga bëgg mu régler mais ñoom dinañ ko gisal seen bopp. parce que boo ma waxee déglu rek boo ma waxee. ku ci mel ne tey manager bi di Ndiago Oro di premier ministre xaw ma dina ci jël ay responsabilité <laughs> ku ci mel ne ah waaw parce que maay honorable député lañ ma wax député bu amee lu ko naqari ah ci assemblée bi lay dem presse bi wër ko mu kaas ay droit am am déet en grand if loolu kese la sa gëdd gi nga war a am ci faramaare ni moom ngay kaas waaw mooy gëdd gi ma war a jox cër gi ma war a jox moo des waxuma ci côté waal de waaw ba Omaro ñëw ci benn mois wala No, no, no, non non non non du Omaro de xam loo tax ma génn di kaas Yves téye gi ñu ma téye Kaolack moo métti. moo la métti quoi boole ko bu Louga bi. Yves loolu moom métti. te média bi buñ groupe woon di dem fenn ngay dem ñu téye ci bunt bi loolu du yoon parce que ca média ba nga bokk. Mhm. da leen la métti trop daaw laa la wax de ma bës loolu ak sama xol.

parce que délégué Amar day déranger. mu tax ngay déranger. parce que ni ma mel la dama dëgg direct ba paré teg wali fu ma ko fu ko kenn tegul ci ñom ñoo ñu dé andal mom parce que xam nga lu tax. Hmm. xam nga Yves andal nit te yoru la da neex. waaw wal da dañu yor. non da déglu dama ni andal nit te yoru la. Hmm. da neex day tax nga libre man wali yoru ma sama kër fayu ko joxum ma lekk joxum comprendre kon li may responsabilité yi may jël ci moom engagement yi may jël ci moom du neex ñu bëri. parce que ñu bëri dañuy jàppale dama koy def waali woo ma jox ma benn un million deux million barke Ahmadul Xaddim war na jëmmi sëñ Tuubaa mi musuma def interview wala may jàppale waali mu woo ma jox ma xaalis musuma jox xaalis. pour ma siiw. ba ma man ba may wut ba may ba may ba may wax ci internet. di attaqué Moustapha Cissé Lo ak ñi daan attaqué Cheikh Amar booba waali booba ñi ñi àndat waali dañoo xam liy waali waali bu jam jamono ñoom ñi àndat moom ñi buñ daan déglu musique waali dañ daan làqatu amuñu fit déglu ko ci mbedd xanaa tey la neex man ba may défendre di jël ay responsabilité ci Cheikh Amar booba ñii xamuñu luy waali du waali moo tax may nekk ci internet de déedéet ci Cheikh Amar laa ko jiite xaj na waali dafa ñëw mu bëgg ko te yàlla tax mu gën cee gën a gën cee voilà